mbokk yi jaa jëf ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm si seen magazine de la mi-journée ñu am mbégte tey dalal Jean-Jacques Fall di responsable commission coordination des mouvements bu commission nationale bu préparation bu pèlerinage marial bu Popenguine sëñu Fall ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. ben merci di jaajëfal euh, Walf TV. di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk fii di liggéey euh, ci Walf euh, Walfadjri ak euh, directeur bi ak personnel bi nekk fii yëpp mais balaa peut-être may tàmbali euh, naam nu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan mais aussi sant yàlla te gërëm ko maa ngi fàttaliku euh, daaw ci waxtu bi maa ngi fi woon ah yàlla may ma encore ma ñëwaat wal fajri xam naa ne maa ngi bëgg bokk ci kër gi quoi <laughs> maa ngi bëgg bokk ci kër gi ba di ci sant borom bi te di ko ñaan itam parce que fi ñu nekk ni yaakaar naa soxla nañ ko lool maanaam jàmm ci suñu xol yi jàmm ci réew mi parce que waxtu bi ñu nekk nii foog naa ne réew mi jàmm la gën a soxla parce que ci jàmm donc la ñu mën a nas koom-koom boo xam ne bu dëgër la ci jàmm la ñu mën a def loo xam ne mun nañu yóbbu ci ci kanam en tout cas loolu li ma soxloon la pour que à travers euh, seen euh, Walfadjri vraiment ma mun ko ñaax ci suñu Sénégal pour que vraiment ku nekk. mun a xool euh, mun a fóot xoolam de telle sorte que ñu mun a booloo vraiment pour que suñu Sénégal gën a naat dem kanam. muy lu am solo yàlla nañu ko yàlla defal ñu tàmbali waxtaan wi jëmale ko ci euh, pèlerinage bi war a am ci ci week-end wi euh, nga jiite euh, commission coordination des mouvements ñu tàmbali ci commission boobu mooy lan mooy liggéeyam. alors naam euh, parce que coordination coordination des mouvements mu ngi nekk benn ci commission yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk organisation pèlerinage Popenguine mi mm-hmm. ah suñu liggéey moo di parce que ñun li ñuy ñi ñuy liggéeyal. mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay scout wala ay guide yi mooy gune jigéen ñi wala ñu nekk JEC wala ñu nekk JOC wala ñu nekk CVAV maanaam donc euh, commission yi nga xam ne soxla nañ ay nit mais dañuy jël ay ndaw foofu jox leen pour ñoom ñu mën a intervenir ñu mën a intervenir ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def Popenguine yenn kii ñuy def itam nga xam ne lu am solo la mooy organisation parce que dem Popenguine ku wax dem Popenguine wax wax ay mees te donc mees bi ñuy am ñu ngi war a am normalement juróom-ñeenti mees te juróom-ñeenti mees yooyu yëpp dañ ciy def li ñuy wax ket te bi ñuy def ket yi ah ñun ñi ñoo koy organiser ñun ñoo koy organiser ñun ñoo koy compter bu pare ñu jébal ko njiit yi ñu jébal ko suñu njiit yi aussi euh, am na loo xam ne am na solo parce que pour mun a ñëw Popenguine ba il faut nga am li ñuy wax badge badge bi moom moo lay identifier moom mooy tax ñu xam ne yow mi pèlerinage moo la indi bon euh, normalement ci biir paroisse yëpp def nañ fa ay badge mais am na ñoo xam ne bon naam peut du ñu jaar paroisse donc dañuy dem directement Popenguine mais pour ñu mën mun leen a permettre ñu am euh, badge mais dafa am ay yenn gox yoo xam ne euh, tànn nañ ko ci Popenguine di fa jaay ay ay bâche pour permettre nit ñi mën a dugg ci fi nga xam ne moom foofu la ñuy ñaanee foofu la ñuy ñaanee bâche bi nag 500 francs lay jar pour ñëpp et pour ñëpp pour mën a dugg donc loolu benn volet mais am na benn livret boo bi ñuy wax itam le livre livret du pèlerin mi nga xam ne ba am na ay euh, kii yu bëri yu nekk ci biir boo xam ne mun na intéresser ki nga xam ne moom mooy dem euh, pèlerinage. yooyu itam ñun ñoo koy ñun ñoo koy jaay ñun ñoo koy jaay bo am na aussi beneen fànn bi ñuy def euh, mooy grotte bi nga xam ne foofu la ñu def euh, Mama Mariama ba foofu ñun ñoo koy ñun ñoo koy surveiller itam donc en loolu moo nekk suñu liggéey ak euh, gune yi nga xam ne ñoom laa lim sànq ci euh, waxtu Popenguine diggante 27 ba le 29 euh, ci ngoon. muy benn kuréel ci kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy taxawu. pèlerinage boobu mais kuréel bu bu am solo. ndax liñ fi lim ni jamono ji daanaka bokk na ci li ëpp ci préparation bi. absolument absolument waaw jamono ji ñu ngi si. daanaka euh, ñaari fan ñu ñu dugg ci ci pèlerinage boobu ñu jëm si mhm. euh, cent trente cinquième téeméer ak fanweer ak juróomi at yoo xamante ne ñu ngi euh, amal pèlerinage boobu ci ci ci Popenguine mhm. boo ñuy dikkaatal ci ci jaar-jaar bi ci histoire bi yan la lan lay doon li ma ci mën a wax naam Popenguine nekkul ne tey la commencé mhm. parce que yàgg na xëy na ci téeméeri at ci gannaaw maanaam depuis 1980 ah euh, pardon pas 1987. 1800 mais 1887. kañ doon wax euh, monseigneur Picarda a ah, muy doxantu ba yegg Popenguine mais ba mu fa yeggee xool ne ah bërëb bi nekk na bërëb boo xam ne mais pour moom nit war na mën a ñëw foofu mais ñaan ñaan euh, Mama Marie. que vraiment li mu namm te mu baax ci moom mu mun ko ko may et donc moom moo njëkk ba euh, tànn fi nga xam ne foofu la ñuy defee foofu la ñuy defee messe bi bon bien sûr am na évolution yu bëri naam am na ay jaar-jaar yu bëri balaa ñuy yegg si fi ñuy yegg si tey parce que bi ñuy waxee cent trente cinquième édition ça veut dire que am na lu bari loo xam ne xew na ci diggante bi euh, ma jël ci benn rek mooy li nga xam ne mooy marche pèlerinage maanaam ba kuréel gi nga xam ne moom mooy euh, dajale gune yi ak ñi nga xam ne aussi seen euh, kattan euh, may na leen ko pour que ñu dox diggante par exemple fii nii Dakar dem utali Popenguine wala jóge Thiès utali Popenguine wala jóge mbuur utali popongin maanaam joses yëpp. Mm-hmm. ñëpp am na foo xam ne foofu la ñuy tàmbalee pour dox pour yegg si yegg si Popenguine donc loolu élément bu bu am solo la parce que dafa nekk loo xam ne dafay euh, boole xale yi naam pour ñuy ñaan diggante bi ñuy do commencé dox par exemple bu ñuy jógee Cap de Biche di utali Popenguine bu ma jëlee waa Ndakaaru rek diggante Cap de Biche ba ba ñuy jot euh, Popenguine mais nekkul ne dañuy fo déedéet mais dañuy ñaan dañuy def chapelet dañuy woy pour vraiment wone seen ngëm te wone seen ngëm parce que aussi ni may faral di waxee toujours dem Popenguine nekkul dem boo xam ne demu pique-nique la wala demu tourisme déedéet dañuy dem parce que mais dañuy dem pour ñaan te kuy dem pour ñaan mais danga nga war a quand même euh, toll foo xam ne mais il faut nga mën a jébal sa bopp parce que boo ko deful itam ah, du loo xam ne peut-être loolu moo gën pour koo xam ne moom mooy dem euh, pèlerinage. Euh, muy 135e édition jamono ji euh, ngeen koy waajal bu baax ren am bokk na ci innovation sanctuaire bi nga xamante daanaka ñu koy ñu ngi koy def tabax mhm. noppeegul te li si des daanaka bëreegul bu ñu gisee image yi ñu yi ñu mujj gis mhm. d'abord si si sanctuaire boobu ci lim bi mën nañ ñu toll na ci vingt quatre mille 24000 places yoo xamante ni mën mën mën nañ ko jëm si yan mhm. projet la bokk bon xëy na bon ëpp na quand même vingt quatre euh, vingt quatre mille places <coughs> mais il faut le dire parce que depuis euh, ay at ci gannaaw mais président de la république dafa namoon mais def li ñuy wax modernisation des villes religieuses ci biir modernisation yu mu ne ma ah xëy na li ma def Tivaouane li ma def Touba li ma def euh, Ndiassane et cetera mais. war naa aussi def lu mel noonu ba pour suñu mbokk chrétiens yi mhm. donc mbokk catholique donc foofu la projet bi jógee projet sanctuaire bu bees bi naam pareegul dëgg la mais pour ren ah ñu aménager ko pour ñu mun a permettre nit ñi mun a def foofu mees des na lu bari gam saa il faut le dire mais dinañ def quand même suñ kéem talaay kattan de telle sorte que mais loolu yëpp itam. ba état bi mooy mooy def moom moo ñuy gunge pour que ñu mun a def euh, lu mel noonu et lu mun a def noonu pareegul des na mais bu xëy na ñaan bi ñuy def foofu dana tax affaire boo gën a booster wu pour que ñu mun ko yeggali ak jàmm. muy benn ci projet yi nga xamante ne dina am foofu ci ci Popenguine ñuy wàcc euh, pèlerinage bi si ñaari fan moom moo ci des maa ngi koy wax euh, sànq euh, bu ne pèlerinage wax ni ay junni junni doomi aadama fu ñuy daje <laughs> fu mel ne Popenguine donc wàccaay bi war na doon lu lu am solo fan ngeen ci toll ah wàccaay bi sori na quand même naam ba bés bi xam du jeex mais l'essentiel li nga xam ne moo gën a am solo yaakaar naa jàll na ci gannaaw ba li ci des as tuut la ba dañ ciy bugg di def dañ ci bugg a def mais lii am solo vraiment yaakaar naa ne euh, am na yaakaar bu baax ne euh, fi ñu toll nii yaakaar naa ne daal euh, ku fa mën a dem danga nga mën a ñaan ni nga ko buggee eh, ni nga ko buggee. waaw dajale ay nit war leen jox fu ñuy fu ñuy fu ñuy dalloo fu ñuy dëkk waaye tamit lu ñuy lu ñuy dundee yan kuréel ñoo yore mbir moom. alors xam nga ni sànq bi ma waxee waxu coordination des mouvement mhm. mais am na yeneen euh, commission yoo xam ne aussi ñoo ŋànk parce que du ñun kese ñun ñoo nekk ci ko ci commission nationale bi am na commission hébergement commission hébergement lan mooy liggéeyam mooy ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñiy intervenir ci pèlerinage bi maanaam ñiy jàng mees maanaam ñi def organisation bi ñooñu ñëpp ba ñooñu dañ leen di organi dañ leen di héberger et dañ leen di héberge kooku commission hébergement bi moo moom moo leen di euh, les délégation étrangères maanaam waa Mauritanie waa Mali waa comment ça s'appelle Gambie ñooñu ñëpp ba commission boobu moo leen di yore ci hébergement. am na aussi la commission restauration mooy maanaam ñi nga xam ne ba ñoom suñu jigéen ñi suñu mama yi ñoom ñoo ñuy jox ñu lekk pendant tout le temps depuis semaine bi depuis lundi ba léegi ba mardi bi di ñëw ñoom ñooy lijjanti loolu. am na aussi commission communication communication mooy seen naataango yi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di permettre ngeen am accréditation euh, foofu noonu ci Popenguine bi wala ñu def de telle sorte que signal bi mun a yegg si fii nii ba Walfadjri donc kooku commission communication am na aussi euh, bi ñuy wax commission euh, comment ça s'appelle parce que aussi yaakaar naa ne naam ñëpp am nañu solo mais bi nga xam ne. moom mooy tax ñuy ñaan mooy lu ñuy wax commission liturgique moom moo ŋànk ba lii xeetoog ñaan yëpp boobu commission moom moo ko yore messe yi niñ koy organiser yëpp boobu commission moom moo ko yore prière yi moom moo ko yore waaw donc boobu dafa am solo de telle sorte que boobu warul sooxe am na aussi commission sécurité bon commission sécurité boobu moom mooy lëkkaloo Euh, ak suñu gendarmerie ak suñu policier yi pour que vraiment sécurité mun a am Popenguine waaw loolu vraiment ñooñu commission yi am na secrétariat général moom mi nga xam ne moom mooy coordonner activité yeneen commission yëpp pour que lépp mun a jaar yoon bien sûr y commission maintenant y a le patron bien sûr qui est le responsable mooy euh, le directeur des œuvres moom moo nekk euh, président commission donc yooyu commission yëpp ñoom ñooy lëkkaloo pour que ñun ñëpp ñu atteindre li nga xam ne ba lan la mooy permettre ki nga xam ne jóge na fii wala mu jóge feneen pour dem Popenguine parce que kese ñaan mool ko yóbbu mu mun ci nekk ci anam yoo xam ne vraiment neex na ko. Euh, Popenguine muñ koy wax pèlerinage bi daanaka kilifa yee koy jiite waaye ndaw ñi dinañ fa bëri. <laughs> Euh, euh, loolu sax ku wax ndaw wax ko woo ndaw dajale ko ci ci ay bërëb. Mhm. war ko jox ban ay message ren lan mooy message pèlerinage bi. alors message bi d'abord. ci thème bi la commencé. Mhm. ni ma ko faram-fàccelee parce que sànq wax naa ko ci nasaraan. Mhm. comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi maanaam bu ma koy euh, traduire xëy na du nekk euh, lu exact exact mais pour nit ñi comprendre mooy jigéen bi dafa ne mais ban maqaama am pour que ki nga xam ne moo nekk suma yaayu borom. ñëw di ma seet si loolu fan la jóge en réalité parce que bi euh, ange Jibril demee seeti la Vierge Marie ne ko a ah, yow la borom bi tànn pour nga nekk ndeyu ki nga xam ne moom mooy musal ñëpp mu tiit ne ah loolu nan la mun a nekkee man mi nga xam ne benn fiancé laa am mais xaw ma góor donc am na projet boppam projet boppam bi lan la mooy que fiancé wu ki ñuy wax Joseph la Youssoufa mu ne waaw ah man mi am loolu nga xam ne man maa ko moom ngeen bëgg ma dugal ci lii nii loolu nan la mën a nekkee lange ne ko diit bul tiit dara lii am du yow yaa koy def borom bi moo koy def bi mu ko waxee loolu ba pare mu ne ko ah waaw bu dee noonu la nangu naa lépp mais ba mu nangoo lépp nag ci la jógee daw utali ki nga xam ne mooy cousine am ñu koy wax Élisabeth te Élisabeth boobu ab màgget la woon mu ngi woon peut-être ci plus de quatre-vingts ans et ci biir quatre-vingts ans yooyu. xam nga ne normalement quatre-vingts ans ah kenn mënatul xaar doom mais yàlla def na kemtaanam ba moom muy xaar moom itam doom donc ñaari jigéen yooyu kii di do yaayu instant kii di yaayu Jean Baptiste ñu tase et donc ci tasse ñaari jigéen yooyu mais am na beneen tase bu nekk ci biir tasse boobu ñan la mooy tasse Insa ak tase yaxya yaxya mi nga xam ne moom mooy xal yoonu insa insa mi nga xam ne moom moo fi mooy ñëw pour musal ñëpp mu am solo donc message bi lan la benn pour jigéen ñi maandu mun a déglu beneen message bi suma projet bokk warul ma gënal projet ñun ñëpp ñu bokk ko et ça nekkul ne pour jigéen ñi kese la mais pour bépp nit sax laay wax. surtout jamono ji nga nekk xale nga nekk mag nga nekk góor nga nekk jigéen message bi pour ñëpp la nga bañ a ne déet man kese déedéet ñun ñëpp. te loolu moo mu mun a ci kanam. message bi ñëw si jamono joo xamante ni li ñuy euh, gis au niveau des réseaux sociaux wala sax si ci ci ci mbedd mi euh, euh, doy na waar ci diggante gune yi ak mag ñi si diggante góor ñi ak jigéen ñi ak kàddu yi nga xamante ne wekk gi ñu waroon wekk respect bi ñu waroon jox la femme jamono ji nga teg ñaari soxna yooyu ñu wala église teg ñaari soxna yooyu ngir jox leen un exemple ndaw ñi wax gi mooy ñii war nañ doy royukaay mais Assane wax nga ko sànq dañu nekk ci moment yoo xam ne mais moment yu terrible la terrible parce que simplement xaw ma ndax damay naan xamatuñ fuñ jëm ku ne day karang-karang di lambaatu te duñ daj dara mu doy waar donc dafa mel ni ñun ñëpp amatuñu royukaay te royukaay dafa am solo ñaari nit ñooñu nag ñu lim muy la Vierge Marie ak Élisabeth mais dañ leen bugg a jox ñun ñëpp muy ku xale ku mag ki pour ñu nekk ay royukaay parce que boo ñooñu ah yaakaar naa ne da nga mën a def fu sori parce que boo royee la Vierge Marie mais sa signifie que da nga nangoo bàyyi sa bopp pour dem ci ñeneen ñi ba muy daw di utali cousine am am na loo xam ne mu ngi woon ci moom mbégte bi nekkoon ci moom ak liñ ko wax ka koy gàttandu ci la mu nakk nekkoon ba gàttandu kooku mu doy waar il faut que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii et c'est pas simplement que tu sois catholique ou moi je dis c'est pour toute personne quelle que soit par ayeur ton obédience religieuse quelle que soit par ailleurs dañu war a vraiment delloosis ci ñun pour que mais xaw ma fóot lañ koy wax xaw ma nuñ koy wax teeti ba nga xam ne mais la ñuy génne nekk loo xam ne am na njëriñ ci lépp ci ñëpp. Jean-Jacques Fall ñu ngi lay jaajëfal. mais merci Assane pour tout en tout cas merci pour en tout cas gërëmaat encore une fois de plus waa Walfadjri ñëwoon naa fi daaw ñëwaat naa fi ren eh, maa ngi ñaan aussi ñëwaat fii déwén. ko ñu ko maye. fekk fii jàmm ju bëree bëri bëri. en tout cas merci pour tout. jërëjëf Jean-Jacques Fall responsable euh, de la commission coordination des mouvements de la commission nationale de la préparation euh, du pèlerinage marial de Popenguine nekkoon suñu gan ci magazine de la mi-journée ñu jaajëfal ko jaajëfal leen yéen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV Bintu Fall moo nekkoon ci régie bi Babacar Lo ci caméra yi ñu bay leen suñu programme ñu yendoog jàmm ba ëllëg ak jàmm